mbokku téléspectateurs yi mbokku internautes yi nekk ci réew mi ak ci bitim réew salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jotaay baa ngi noonu mbokk yi mu nekk jotaayu làmb mais mu nekk jotaayu aada ak cosaan kan moo ko wootee jam jama yekeen production nekk xale boo xamante ne ni chaque jour moo wax ko ci innovation ci lay dund lépp loo xamante ni gars yi ragal nañ ko def moom dina ko def mu jëm nag arène nationale le 20 bii mu ne sargal jigéen weer wi la at bi la bés bi la bés bi nga xam ne moom la ñuy sargal jigéen mu sargal ci koo xamante ne nii maanaam jigéen la ci biir jigéen ñi lu tax soxna Aida Saliou boo ko waxee rek tur wi mëdd na lu bari mais am na ñoo xam ne sax mun nañu ne soxna Aida Saliou lu muy wut ci làmb social <laughs> social ak def lu baax ndax bu korité jotee mu ngi ci ceeb yi diwlin yi ganaar yi bu tabaski jotee mi ngi ci xar yi bu màggal jotee ma nga bu gàmmu jotee ma nga bu koñ bi soxlaa ma nga ca bu soxlaa ma ca loolu moo tax jamaïcain production nar ko delloo njukkal nag le vin fii ci arène national ñu ci woo góor ñi jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi di ci woo ñépp nag mu nekk bés boo xamante ne nii soxna ay nee na cofu ko bés bu ko ñor la ndax fi mu jógee la ndax bu leen fàtte ni moom ak jamaïcain ñoo bokk koñ d'abord ndax séddale ca kuddu yu njëkk ya balaa dara di xew bu seetaan ab komba faga mu tuddee la ko ñun duñ ko nangu ñun ñi nga xam ne jege nañ la waaye dafa seet lu baax mu tuddee la ko Fils de Balla ak Gora Sock moo nekkoon grand combat bi blessure am comme ni Modou Lo amee blessure ci diggante mag Ama Balde moo dal ki nga xamante ne nii euh, moom mooy Gora Sock ñu koy ñaanal yàlla mu may ko wér ba mu dellu siwaat loolu c'est à retenir incha allahu rabbi jàmm ñu ngi nag tey ci soxna Aida Saliou social bi jàmm teraanga ji sutura si képp ku ko gis ci stade bi jàppal ni social moo ko fa indi wax na ma léegi nombre de ceeb bi nga xamante ni mi ngi koy waajal ci koor gi te noonu mu koy defee noonu la koy defee ci diine ji ci chrétien yi ci ñëpp ci ordonnance ci ñëpp yàlla sa jàmm yàgg jàmm nga wax ñu tey lan moo tax nga tànn soxna Aida Saliou ba nar ko delloo njukkal la fan waaw bépp caméraman bi fi nekk ak reporter di la nuyu bu baax di nuyu sunu yaay ji toog ak mbooloo mi fi nekk yépp kii nag suñ ko tuddee drapeau réew mi kenn du laajte moo tax ñu tuddee ko drapeau ndax wax nga ko sànq ci weer bi ci at bi ci bés bi mars lañu wax ñoom ne mars weeru jigéen ñi la mu nekk suñu yaay ñu bokk ci koñ bi buñ dëkkoon feneen sax ci dëkk bi gis nañ lu baax li muy def ci réew mi waxutuma laak biñ dëkkeek moom benn gox li muy def ëmpul kenn ëmpul kenn ci réew mi kon mun ñu sargal jigéen ñi génnee ko ci moo tax ñu ne nag béy say wayu tànk balaa ngaa dàq keneen mu dem ci àll bi nga dàq mu dem ci biir kër gi ñu jël drapeau bi tuddee ko ko réccu ñu tax ñu tuddee ko ko bi ñuy mébét lii wax dëgg yàlla senegal ndam lu réy lii ñu indil ñu yëggaguñu woon ci kan bi commencé gul te gis nañ bi mu commencé taxawaay bi mu am ci réew mi bokk na si ñu njëkk taxaw ci réew mi ne ren Sénégal dinañ teg dinañ fi indi kudd heure bu Sénégal amee max drapeau vert jaune lay sol adduna bi yëpp seede nañ ko génne alalam di ci def xaarul kenn kon nag kooku suñu ko delloo njukkal ci bis bi réew mi yëpp lañu ñu delloo njukkal te bis bi yaakaar naa ne ah na ko réew mi yëpp delloo njukkal moom tamit ñu wuyu ko ci bisam bi waaw ndax lim ñu lebal nañ ko ko fay jarul wax ji du bëri ndax wax nga lépp danaa di ko sant di ko ñaanal rek teraanga ji muy defal jaami yàlla yi sunu borom fay ko ko ay yiw ci barke Seydina Mohamed ak barke Sëñ Saaliw mu gëm mu yaakaar ndax loo wax ci moom rek am na lu des ñun dégguñ ci def kenn promotion su ko defuloon duñ ko wax képp ku nekk ci àdduna bi gis na lu ñu def yal na ko yàlla sàmm sàmm njabootam di ñu bàyyi ko journaliste yi mu tag waaye nag di ñaanal sëriñ Saaliw sama sang ba yal na yàlla yokk ay leeram ak njabootam gépp waaye di ñaanal waa kër Baye Laye ak Seydi gépp bàyyiwuma kenn fii may yeewoo ci Cambérène ndax nag su ma yuuxoo ñooy wàllu si di ñaanal samay xarit samay soppe samay dëkkandoo ndax nag samay dëkkandoo mënu ma leen a fay parce que bi ma demee léegi su ma nee su ma siflee sax bala maa pare ñëpp génn xale dina génn parce que soxnaay da amul noonu Sénégal la ko bëgg ñoo ko choisir moo tax damay faral fas yéene di wax naan la vaillante de peuple parce que defuma ko sama bopp askan wee ko wax ma déggu ko jamaricain euh, nag dafa dëkk parcelle ma dëkk parcelle ci lii mu tëgg làmb ci xale nekk ci niveau bu baax waaye nag mu tuddee ko roi des arènes bu jigéen bi parce que parcelle nangu naa ne man maay roi des arènes bi su ma génnee ñu xam ne parcelle gépp génn nañu su ma génnee ñu xam ne Cambérène gépp génn nañu waaye su ma génnee ñu xam ne soppe ak xarit yi su ma taxawoon rek wax ko ci benn interview rek Sénégal gépp dinañ ma wuy si biir stade bi parce que nit ñee may soññ chaque jour nag naan ma combat bi kañ la combat bi nit ñi ñoo ma ko njëkk a jël sëriya waaw aadamoo ñëpp amul koo xam ne ñoo ma njëkk jël combat bi sérieux kon ma ne Sénégal ku ma namoon ak ñu amoon yittey gis ma ak ñu amoon yittey jàkkaarlook man na nañu xam ne stade ba maa fay njëkk te maa fay mujj nañ jënd ticket yi toog toogaay bu rafet sañse na xale yu góor yi génne jasneer yi génne mbasin yi ñu xam ne dañuy waajal koor gi te soxna Aïda sax fa lay féetee anniversaire am ndax anniversaire bi le 23 la mars ñu dem ma daal di koy jiital boole koog le 20 bi rek Sénégal jëm kanam ñu ñaanalante di gën a ñaax xale yi ñu moytu TikTok bi ak Instagram bi le 8 mars la 7 mars laa génnoon ni leen bu leen xaar le 8 mars dafa jàmp génne leen sarax yi mi ngi ci sama TikTok am na date am na heure booba lii rek lan gisoon di ñaanal ñi fi jóge yal leen yàlla yërëm xare leen àjjana waaye di ñaanal ñi fi des yal yàlla sàmm njaboot gi téyal ñu njaboot gi aaral ñu njaboot gi te aar ñëpp di ñaanal journaliste si nag ndax internet bi maa ko moom sama yëfa ndax journaliste yëpp samay doom lañu maa ñoom ñoo bokk télévision yi bàyyiwuma kenn na réew mi am jàmm daal am tawféex ñu dund ko dund bu neex waaye làmb ji bu nu fi jaaree tëgg ba pare ku yeboo bale suufu stade bi te di ko te xam ne njarte la barki Serigne Saliou macha allah bis bi nag da ko bokk ak sa doom sa jarbaat xaritu réew mi ki ñëpp safoo muy Bougie Ngoné yéen ñaar yéen bokk bés bi mu am ci drapeau nga am ci drapeau moom it mu nekk koo xamante ni nii ku ku ñàkk kiñaan la nga bokk moom bés boobu am na fu ngeen jaar ci fu bëri ci confrontation ci ay wax waaye bés bi dama ci gis koo xamante ni nii daf ci imprégné wu trop muy Adamo ñu koy sant di ko gërëm di wax ni que ci promotion bés bi bu ci bu ci génne loxoom ndax Adamo sénégalais yi ñu ngi koy déglu sénégalais yi jox nañ ko bopp moom it roi la ci li muy def ñu koy woo moom it ci bés bi moom mu dugal ci loxoom ci zaahir ak ci baatin gis nañ promotion bi mais fi nga ko jàpp foofu la kon mbokk yi ñu bàyyi euh, jamaïcain def remise drapeau bi jox ko ko euh, soxna Aida jël drapeau bi denc ko ba dimanche ak jàmm mu ñëw ak ay mbokkam ak ay am di jàmmam ak ay xaritam ñëw kon mbokk yi bés baa ngi noonu le 20 la ci arène nationale drapeau soxna Aida Saliou ki ko tëgg du kenn ku dul jamaïcain asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu